il va venir en appoint avec les, les, camarades pour que dépôt yi fi nek yep tay tay ñun ñu jël ko mais lolu limuy wone wone rek moy que du rek ñi dëkk ñi nek UCG ñoo wara nettoyer donc ñëpp le concerné tay nettoyement dafa nek un enjeu national tey il nous faut une conscience citoyenne à tous les niveaux ba pare aussi tamit foog nit ñi xam ne du président de la république rek la ñu war a xaar mu war a wax si wàllu Sénégal zéro déchet pour que nit ñi war a donc action yu mel nii ñun bu ñu gisee ku mel ni ou bien ñoom Soya Diagne ñëw ñëw ci lycée bu mel nii mu wóor leen tey tey mun naa ne tey bu fekkoon ne tey appel bi ñëpp déggoon na ñëpp ñu fi war a ñëw jàpp ci mais lii wane na ne ñoom ñu ñëw ñàkk ñëw l'essentiel ñoom ñi fi di def liggéey bu rafet ak élèves yi ak ak euh, yenn partenaires yi fi nekk donc ñun dañ koy rafetlu di wax ne en tant que liggéeykatu UCG ñu li mooy suñu devoir bu dul dara nit kenn ko xeebal bësam nit kenn ko xeebal soxlaam nit kenn ko xeebal sëriñam te koo xam ne ne sa saa wootee mu ñëw foo ko mu ñëw donc momit su wootee ñu nit dañ ci war a donc vraiment di rafetlu initiative bi di wax ni vraiment ñun li dañ ci gis suñu bop motax tax à chaque fois ku ku xewle rek ñun dañuy ñëw japp ci. voilà en tout cas man maa leen di remercier di wax ni euh, di ñaan yalla vraiment Sénégal zéro déchet bi nga xamné ni mom lañu lancer surtout que le 1er février mooy doon deuxième journée bi fofu nak lañuy xam est-ce que sénégalais yi approprié wu nañu vraiment concept zéro déchet donc di ñaan yalla cet gi nga xamné mom moom bëgg yalla na yalla def jamm ci Sénégal alors tay dañ fi li ñu gis euh, ah, environnement bi mu mais responsabilité ñëpp la muy élève professeur administration ba gardien bi sax donc ñu initiative bi jeunes ay mag yu nekk ci ay organisation yi nga xam dañuy jub liggéey ci lu jëm citoyenneté mbirum environnement propreté ñëw ne nañu setal Blaise Diagne parce que Blaise Diagne école la donc euh, bala sax organisation yi di ñëw je pense que xalé yi ci seen biir prof yi seen biir bop administration bi ñoo wara am initiative yooyu setal seen seen environnement ndax munoo jàng ci environnement bu salté mënoo wër ci environnement bu salte waratuñu dépendre ci organisation yi pour pour sétal suñu gox mais ñun suñu biir ño wara sét buñu sété suñu biir sét suñu xol sét suñu kër sét suñu ay école dinañ mëna sétal Sénégal. ñuy rafetlu initiative yu melni nii duñ ñu guleet parce que yag nañ ko def euh biñ ko dalé def defe na bientôt 2 ans euh ñu nekk ci chaque jour. Nous euh, ngi ñu ngi édifices publics yi ñu ngi artères yu euh, euh, des journées de nettoiement mais ce ci est il faudrait que sénégalais sachent que nous defuñu ko pour di concurrencer ak l'État defuñu ko aussi pour euh, que l'État bi euh, bàyyi ñu di parce que effectivement journée bu nous avons bien avant le président di lancer concept Sénégal zéro déchet l'État euh, bi mi ngi à travers l'UCG à travers les maires yi nga xamante ni démembrement de l'état donc nous ñu mbëbës pour que si nous les le nous avons saleté qui est là, nous déjà lolu si nous l'état de de l'eau, nous nettoyer aussi nous aussi. Donc, je profite de ça pour lancer l'appel sénégalais. Nous savons que le mirum tchèque n'est pas Le président de la République, Len Le a lancé le concept. Le concept de 5 ans, 6 ans, 10 ans mais lo xamanteni la day transcender des des générations et des générations donc lolu Sénégalais, yépp dañ ko wara def seen mbirum bop surtout que Sénégalais yépp à l'unanimité d'accord nañ ni dëkk bi donc dëkk bi salte na dañ ko war a seetal kon sénégalais bu ci nekk ak foo mën a ne war nga jël sa bale commencé seetal sa buntu kër bu kenn ku nekk seetalee sa buntu kër rek bu ñu là, ci mbedd mi mbedd mi set donc mooy profité ci occasion bi di lancer un appel à tous les sénégalais à tous les patriotes opposition pouvoir société civile ñëpp ñoo ci bokk là. parce que est opposé wu tey

na sénégalais yëpp àndandoo ñu bokk ndey bokk baay bu le er février jotee ñëpp génn foo sénégalais nekk ku ci nekk sétal sa gox bu ko défé muy doon lo xamanténi ne legg la bu ñuy ak génération future baye ak génération future yi di ñëw ay conflit politique kessé nañu am benn mbir bo xamanténi au moins dinañ ni kat ah en 2020 le peuple sénégalais s'était réuni dans son ensemble jël mbirum set baye ko fi mom la nuit ba 2100